tey biñ fi dañu jox comme ni milliards 500. manam ëpp juróom benn milliard jox ko du transport aérien pour ñu dimbali sen comme comme. li nak soko xeyma xaliss bu d'abord ci jamono ñu ndax ku gouvernement sénégalais ci njiitu président Macky Sall jëlee lu toll noonu jox ko secteur privé day wone importance ba nga xamul secteur privé am ci li nga xam ne liggéeyu gouvernement bi lu mat ñaar fukki entreprise ak juróom-ñaar financé nañ leen financement yaa ngi tàmbalee lu mat juróom-ñetti millions maanaam 8 millions ba milliards te loolu yëpp su gouvernement bi defee ministère des finances mais également avec son ñaar BND, yi muy BNDE wax Enicia Banque lii de dafa avec PSE maanaam plan Sénégal émergent Vous savez, nga ci plan Sénégal émergent dañ ci jukki lu jëm ci stratégie bi saytu tourisme ak transport aérien Cette stratégie de dafa fësal Sénégal war a nekk bërëb boo xam ne ci wàllu transport aérien dafa war a fës dafa war a ràññee ndax xam ngeen ci Afrique sowu jant dañ fi bëru ay wujj dëkk yu bëri dañ bëgg a jiitu ci wàllu transport aérien. donc baaxoon na également ce secteur privé la ñu jàppale leen moo tax ñu ngi leen di ñaax ci foofu lay daaneel sama kaddu pour que financement bii euh, ñu leen jox ñu utiliser ko ci na mu gën a baaxee def ci investissement yoo xam ne ëllëg bu ñuy ubbi yeneen aéroport yu bees du leen bett parce que kat bu ñu ubbee prochainement de nouveaux aéroports te nekk leen à niveau ay concurrents ñoo ko ñu jël dooleel te du leen dooleel donc loolu aussi baax na ngeen bàyyi ci xel bu baax a baax.